mbokku téléspectateurs yu sunu Label TV daleen jàmm ci seen émission agriculture agriculture di dalal Birame Ndek Ndiaye Birame Ndek Ndiaye interprète la day bind ay woy ngir ay woykat bind na ngir Youssou Ndour Kiné Lam Alioune Mbaye Nder mbaa sax woy ba du jagleel gaynde yi ci coupe du monde ci atum 2000 Birame Ndek Ndiaye ku ràññeeku la itam ci assurance muy pàcc bu am solo ci wàllu caada ak cosaan daleen jàmm ci seen émission agriculture. jërëjëf ak l'équipe là de sunu Label. leen di gërëm ba ci kilifa bi Matar la ak liggéey bu rafet bi ngeen di def euh, lii dafa am solo ci réew dafa am solo ci euh, ci caada cosaan bi euh, parce que loolu mooy indi identité te di ko feeñal lu am solo la lu am njëriñ la ci réew malheureusement duñ koy faral di gis lool yeneen fànn yi ci àdduna ci dundin bi la ñu gën a gis donc ngeen may ñu fii benn palanteer bu tax ñu ci mun a waxee ah du ñu def lu dul gërëm leen bu baax baax. macha allah euh, li ngay def bokk na ci bind ay woy auteur nga interprète nga compositeur nga bindal nga ay artistes yu mag ci àdduna bi ñu ci mel ni Youssou Ndour Kiné Lam Alioune Mbaye Nder euh, mën nga ñëwaat ci loolu yan woy nga bind ngir Youssou Ndour yaay ki nelaam muy diva di ndaanaan bu mag moom tamit ban woy Alioune Mbaye ak ñoom seen. waaw maa lay gërëm euh, bi may. commencé d'abord ay taalif laa doon def euh, lu ma yàlla def ma dajeek Youssou Ndour di ko gërëm parce que foofu la yëpp soqe ko donc euh, naa ko ci gërëm bu baax muy artiste bu mag te lu mu laal yàlla daf ko may loolu daal yàlla ko may yëf fi barkele defal naa ko lees waxul ñu def lépp loo gis rek wala nga dégg ko wala nga liir ko nii nga koy gëm jàngal li ci biir tekki li na tekk tekkaaral tamit euh, ak euh, sawruma am doom ñu gis si xale yi ñu mel ni léegi ak àdduna bi ñu naan ñun sax suñ jamono amoon nañ yaakaar waaye léegi li ñuy gis ci xale yi daf ñuy jaaxal lool kenn bëggul gis doom joo xam ne euh, du gis jant bi benn gis doom joo xam ne muy naqaral yaayam wala du mbégte ci baayam tamit yaakaar mooy ki doon toppatoo soo mënee defal ko yow laa doon gis bu ma sonnee yaa ma doon digal su ma réeree mënuma la bàyyi mënuma la fàtte bi lépp sottee. Euh, samay nit maa ngi bind woy bi di ko may ñëpp ñi ma jàppale suma leen mënoon seet si def naa ko su ma leen mënoon jox loxo def naa ko voilà mais du leen mos a fàtte comme artiste bu taxaw di wax ak euh, sa public ak li mu représenté ci yow. Euh, ak yaa aussi tamit maa ngi koy fàttale fàttaliku country boy parce que da ngay gis léegi jamono ji. xale bu jógee ci euh, réew yi village yi ñuy wax réewu kaw gi ñëw ci taax mi rek commencé di soppeeku di def yoo xam ne waru koon def di toox di naan bugg ay ah, di fecc di dëgg ci tànk jàmbur yeeg su mu war sa def alors que ëlbateku complètement te nit ku nekk da nga war a garder say identité aussi ak say valeur waaw loolu mooy am solo parce que dañ naan ñaar suñu àndee te bokkuñu di ko am ku soppi sa borom mais nit bu ñuy ànd ku nekk da ngay indi li gën a baax man li baax ci feneen ba ci li baax sax ci bitim réew ma jël ko boole kook li ma li baax ci man loolu dafa am solo. yaay Kiné Lam euh, maire bi euh, ku baax la euh, sunu jigéen la. di aussi ñaanal dogo bu baax a baax a baax borom këram nekkoon aussi nit ku baax nit ku baax ku am taxawu eh, def nañ ay ay bind yoo xam ne interprété na ko yu mel ni suma sañoon lu tax ma war a fay lu ma lebul lu tax ma war a toog fu ma moomewul parce que léegi jamono ji da ngay gis ñuy technique foo xam ne du palaasam ku mérité dara duñ la ko jox ku mérité wul dara ñu jox la ko ah nga war a ñëw di fay ëllëg loo xam ne yow lebuloo ko moo tax lépp lu ñuy def rek war nañ ci xalaat génération yu yi te leb bi aussi mun na nekk ci ci yeneen conséquences yu bëri du rek euh, dette bi nii comme ça mais tant que mun na indi génération yu yi ñëw euh, mieux-être baax na donc te suñu koy def du rek euh, Sénégal lay xalaat Afrique bi yëpp ak àdduna bi yëpp tamit ah donc euh, ak aussi bi muy wax naan su ndey ak bàyyi di xuloo ba ci xeex fu doom jëm gune gi bu déglu li sa yaay di wax bul set ko ci faral demal ci biti boo màggee defal sa warugar parce que loolu jamono la loo xam ne dañ koy gis ci lu bëri ak euh, ak yeneen ak yeneen fàttalekul doom su ma sonnee yaa ko waral te bés dina ñëw ma dem bala li ma fi bàyyi bëriwul mais jëm ko aar nga sakk sakkanal ko ndax sa doom muy sama set mu fekk fi dara jant baa ngi soo man dama lay gunge kese ak nettali ak ak ay yeneen na daal fàttalikul doom suma sonni bi lay yow yaa ko waaral li ma gën a ragal mooy ngeen yàqu sama gannaaw xam ne mu ngi ci ak coupe du monde tamit. waaw euh, coupe du monde ca kanam yow yaa ko fent en 2002. 2002 artistes yëpp bokk ci. mën nga ñëwaat ak ak ay kàddu yu xóot. ci gaynde muy wane ne mooy buuru àll. waaw euh, fukk ak benn ngi ci biir parce que booy wax football boo ne fukk ak benn xam nañ ne du basket juróom du rugby fukk ak benn ngi ci biir mu jaral leen di daw ba miir lii nag dañ ko def ak ay rim boo gisee biir ak miir fukk ak benn ngi ci biir mu jaral leen di daw ba miir. nga ne askan wi ànd ak ñoom ne li ñuy sàkku ñoo ko moom ah, xale yi jigéen ñi tàccu xale yi xaaju mag ñu yor seen course tey ñu ne li ngay def soo ko gëmee ni nga koy defee soo ko mënee dara du la gaaw a yëngal sudul bàkk bi maanaam chanson bi di lay yëng tàngal après su ko defee dinañ toog boo xam ne gaynde day ŋaar mais euh, ñu am taw feex dënn yi feex Euh, ca kanam ca kanam ainsi de suite et di ci saluer aussi ku mel ni Thione nga xam ne moo ubbi wéy ko ak Touré Kunda mais yeneen artistes yu mag yëpp Baaba Maal Ismaël Lo Omar Pène Kumba Gawlo Kumba Gawlo euh, defoon nañ ko même Demba Dia am na yeneen version yoo xam ne euh, am na jeune rappeur yi ci bokkoon à l'époque vraiment yàlla defoon ñu demoon ba finale Coupe d'Afrique yàlla defoon tamit ñu dem ba quart de finale Coupe du monde gis nga union des cœurs amoon na lépp yàlla defoon mu nekk ci xol yi yu am solo la ma yaakaar naa ne réew daal bu ñu bokk bokk jëmukaay ah loolu dafa am solo moo tax ma ne ñu ñu jóg taxaw bokk jëmukaay Sénégal ne ndam li kaay nga loolu surtout ci ci terminaison yi maanaam rim yi ni muy jeexee tey nekk wolof lu riche la ñun ñoo ko gëstuwul lu bëri rek waaye ku seet ne ne suñu ci sunu mag ñi maam ñi sëñ Moussa Ka ñeneen ak ñeneen. ko ci Kocc Barma Fall. ci Barma mais même gis ne suñu kilifa diine yi sunu xalif généraux yi ñu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon sanc fi yenn tarixa yooyu yëpp. dañoo bind bàyyi bind dafa am solo te yaakaar naa ne loolu lu jëriñ la moo tax man tamit ma ne ah fi may yëngatu si assurance ma génnee fa dara bind bàyyi ko pour xale yu ëllëg ci culture aussi les industries culture jéem bàyyi dara ak ci thèmes yi poèmes yi nga xam ne ëllëg sax buñ ma gisatul ku ci xool dara su la fekkee neex na nga jël ku mel ni Pape Diouf aussi dinaa ko saluer bu baax muy xale bu Euh, vraiment am Pastef tamit euh, ak ñoom euh, Aline kase Aline kase liggéey nañu ak ba Dia nel tekk parce que adduna bi loolu mooy wane humilité fi nga dem bur yaakaar yow rek yaa fa dem keneen dem na fa ne tekk man sax dem naa fa ne tek li nga xam bul yaakaar ni yow rek yaa ko xam keneen xam na ko ne tekk man sax xam naa ko ne tekk. li nga gis li nga gis bul yaakaar ne yow rek yaa ko gis fi nga dem. bul yaakaar ne yow rek yaa fa dem. keneen dem na fa ne teg man sax keneen am na ko pour wane na nit ñi daal loo am loo mën loo gis loo yor foo dem am na ku def lu donc il faut savoir raison garder. am na liggéey tamit bu am solo bu ngeen def ak mbas mi bi mu daanee ci àdduna wërngal këpp ngeen nga dajalee lu toll ci fukk ak juróom-ñaari woykat euh, ñaari pentre ngeen dóor ay single sensibilisation boole doole ak feebar bi loolu nunu koy jàngatee jamono ju jot bindkat bi nitu caada bi day taxaw donte ay jamono yu metti la ndax mbas mi waaw parce que loolu mooy wane ne ñu nit ci dëkk bi lañu nekk parce que bind liggéey la même su fekkee am naa beneen métier muy assurance juriste man droit laa def ba def ci troisième cycle mais bind dafa nekk sama passion et euh, yaakaar naa ne maa ngi koy tooñee yeneen yi même suñu politiciens yi suñu yeneen domaines yi wax ji bëri na mais il faut que ñu def ay jëf di bind di jéem bàyyi dara ku ci nekk même bu doon fukki page la sax nga bàyyi ko fi pour ëllëg alors mbas mi bi mu ñëwee ñu ne ñun tamit ci société bi lañ bokk am na lu mun a apporter te lu ñu mën sensibilisation bokk na ci sensibilisation bokk na ci dëgg dëgg dëgg dëgg wax ak askan wi te euh, loolu la avantage artistes yi bindkat yi écrivain yi am ñoom surtout artistes yi da ngay gis ñuy def dara nit ñi di leen fay pour seetaan ko alors que politiciens yi dañuy def dara di remplir di fay pour gars yi ñëw alors que ñoom donc lu mel noonu ñuy participer ci seen société lu am solo la euh, moo taxoon ñu def ko pour euh, mu nekk loo xam ne euh, dina ko nit ñi dinañ ko mën a dégg ay mesures barrières yi attitudes yi ñu war a am tous les comportements yoo xam ne mun na sauver nit même bu benn bakkan la sax am na solo parce que artiste euh, nit mun na wax leneen def benn spot ñu bañ ko dégg mais boo réunir artistes yu mag yooyu wala ni Baaba Maal ay ñoom Adiouza ay Safari ñu ngi ci woon Fallou Dieng Aline Mbaye Nder Assane Mboup eh, Carlou D. DJ Awadi di non bii Awadi non bii ba bokk ci woon mon ami Awadi que j'aime bien qui vraiment yàlla day def très souvent dañuy bokk ci ay conférences di ko animer ensemble et séminaire un homme très engagé que je salue et un homme entier aussi qui a beaucoup apporté à la à la culture sénégalaise parce que ku même africaine donc euh, ak ñeneen ñoo nga xam ne ñoom ñoom Alioune Cissé. ay euh, ñu ci am na ñu ci participer daal ñoo xam ne liste bi xawoon euh, sakkan mais dañuy remercier bu baax a baax Baba Mal bi ñëw ne ñu vraiment ñun man lu ngeen ci bëgg rek biram ma accompagner ko si c'est extraordinaire gis nga euh, culture ku ko jàppale jàppale nga sa bopp mooy nit mooy ci fi ngay sëkkandiku nit ñu ne soo wàccee sa ànd dem ci beneen beneen boo war tam dana dana toj ñun ci ci aada cosaan gisal ku mel ni Doudou Ndiaye Rose ci monde bi lim defoon amul égal ku mel ni Ousmane Sow le sculpteur mais amul morom c'est des yoo xam ne bu demoon Japon dañ leen di yëkkati ba ci kaw. ku mel ni Yandé Codou Sène. ku mel ni Yandé Codou Sène. Youssou Ndour Baaba Maal la ñoom Ismaël Lô ñooñu pen mais dafa fu ñu dem pour nga jege leen sax day extraordinaire maa ngi ku benn bës Méridien président. ma gis tase fa ak Youssou benn tubaab ñëw ne ah kii Youssou la mu ne ma yéen vous avez de la chance ñun ay ñoom Dione Ali benn yoon nga koy gis te da nga koy gis lu sori est-ce que mun naa wax ak ñoom te ñi fii aussi seen accessibilité ñoom artistes yi yëpp dañuy féliciter di leen remercier mais yal na yàlla def aussi li ñu indil Sénégal Sénégal delloo leen ko mm. ci peut-être ci statut bi protection sociale xam naa yaa ngi koy waajal mm-hmm. ci question yi mm-hmm. Euh, ñu am mérite lañu. suñuy ambassadeurs suñuy ambassadeurs mais ambassadeurs yu mag ñoom ak ceux qui sont dans le sport moi je rêve d'une grande rencontre entre art et sport ñooñu rek ku leen boole population bu rëy la nga xam ne seen protection ak sen lépp nit mun nañ ko def parce que lu am maanaa la euh, aujourd'hui ce que Sadio Mané Kalidou Koulibaly Mendy ou les autres Ghana que je salue au passage qui a subi une pression extraordinaire mais qui est resté solide gëm li ma gëm mais bul wax ma bàyyi ma gëm surtout bu fekkee li nga gëm gëmul li ma gëm. ñaar dafa mel ni am na fu ñuy dajaloo mooy nitu caada ak cosaan bi ak sportif bi bu mettee nit caada ak cosaan da lay dëfal da jox yaakaar hmm. sportif bi da lay jox njàmbaar da lay jox jom tamit. absolument ñoom c'est des éléments yoo xam ne dañuy représenter état du Sénégal ils sont ils ont d'autres employeurs ou ils sauto emploi surtout dans la culture. Mais c'est des gens, le rapport est extraordinaire. Extraordinaire. Et je pense que Koulen Sigil, Sigil nga Dergounioul, Sigil nga Sénégal. Parce qu'au banquet de l'universel, c'est des gens qui ont avec n'importe qui. Ils sont parmi les premiers. Dans les autres domaines, ils ne sont pas parmi les premiers ou les cinq premiers. Dans le domaine de la, de, de, du sport, nous sommes champions d'Afrique. Mais dans l'autre domaine, politique ou, ou industrie ou économie, nous ne sommes pas les champions d'Afrique. Il faut le reconnaître. Même si nous sommes parfois parmi les premiers, nous trustons. Mais là, carrément, dans un pays comme le Sénégal, où vous avez Ismaël Babamal, euh, Youssou euh, mais je ne sais pas, à, à tous nos rapports, loolu daf ñuy may tamit ñu wax ci ni nga ko waxee juñu nga ko sànq statut artiste euh, ci beneen fànn def nga droit spécialisé wu nga ci wàllum assurance mu mel ni mbir la moo xamante ne nitu caada ak cosaan yëpp soxla nañu ko bu ñu gisee yenn jamono yi ñuy dund yenn mettit yi waaw loolu yàlla def na sax man bind naa ko bàyyi ko statut statut ak protection de l'artiste parce que statut bi statut bi boo ko xoolee yi may téere bi nga mujj génnee. non bii moom ay ay 2005 yooyu la woon 2005 bañ koy xalaat boobu temps le statut génnagul amagul ampleur bi mu am mais aussi buy génn tamit Sénégal war nañ di toujours di xalaat les décrets d'application statut situation la ci nit mais statut aussi day indi ay droits ay aq ay yelleef sur le plan de l'emploi sur le plan de la protection sociale parce que war nañ la ku la employé di lay fayal loo xam ne lii ëllëg sa sécurité sociale en France bu ñu xoolee c'est tellement bien organisé dafa am association yu auteurs ak interprètes yi foo xam ne dañ leen di euh, kiyal seen seen protection sociale bu baax a baax a baax donc ñun am na solo ñu ñu def ko mais c'est dommage que Sénégal dañuy xëy rek wax dara am équipe bu ko def bu paree bu su amee instabilité au niveau d'un tel poste comme par exemple au ministère de la culture après ñu teg ko fële on recommence un travail de Sisyphe mais il serait bon de discuter ñi nga xam ne am na artistes yoo xam ne ñu ñu ngi ñu ngi ci milieu de la culture ñoo xam ne en même temps yàlla def ñu nekk ay juristes am na ñoo ci xam ne ils sont dans euh, des professeurs d'université et autres donc <clears throat> mun nañ ci génnee lu am solo mais artiste bi euh, le statut d'abord dafa am protection des œuvres artistiques et littéraires mais protection nit ki tamit mu nekk lu am solo la recommandation mu bañ a tumuraanke ñu bañ ko kettal. mu ngoog la recommandation de Belgrade wax na ko 1980 je parle des références internationales euh, euh, la déclaration universelle des droits de l'homme 1948 wax na ko tout homme a droit à la protection sociale les statuts il faut il faut euh, kooku chaque pays doit vraiment veiller à sa pour que nit ñi mën ko am. comme il faut. dañuy wax c'est un droit. dañuy wax ne nitu caada yi dañ ñoo dañ ñuy bégal. ñun mm-hmm. tamit voilà war nañ leen a taxaw li nga wax. mais dañ la war a taxaw parce que euh, artiste bi c'est un travailleur culturel mais dafa bëri ay situation dis-moi quelle euh, protection sociale tu as pratiquement te dirais quel statut am ñoo xam ne ay état moo leen doon employé ñuy liggéey ci compagnie de théâtre wala ci télévision nationale am na ñoo xam ne euh, c'est certains hôtels ñoo leen di employé. ñu liggéey fa tuuti pour bëggee nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ñu ci bëri ñoom ñoo yore seen bopp mais am na ci ñoom ñoo xam ne aussi dañuy employeur dañuy jël d'autres artistes yore leen di leen di fay mais sécurité sociale booy employé nga am déjà deux trois personnes plus mais war nga leen a mun a affilier maintenant dafa am yu bëri parce que man mii sama bopp jiite woon naa benn ay discussion yoo xam ne demoon nañ ba état du Sénégal sous le euh, gouvernement de du président Abdoulaye Wade à l'époque je crois euh, demoon nañ ba ñoom nee nañ danañ jàppale gars yi ñu di xam ne 50 pour cent millions le gouvernement qui est venu après de Macky Sall a renforcé je crois ba dem ba 100 millions mais xaw ma ndax versé nañ ko ou pas mais une convention a été signée et j'ai été même le conseil le consultant dans cette affaire là et euh, mais après il y a eu une mutuelle des assurés, des, des, des, des, des acteurs culturels. Mais ça, c'est seulement l'aspect maladie. D'accord. Mais il y a la retraite. À couverture les... maladie universelle. Voilà, mais il y a la retraite, mm. il y a l'invalidité, il y a le décès, tout cela, le rapatriement de corps. Donc, c'est tout un ensemble, la protection sociale. Et parce que Sénégal, dafa nekk pionnier dafa war a joxe exemple bu ñu toog ba di wax. di wax def ko ci tiroir ñeneen ñëw appliquer ko ay Burkina ak yeneen ñi sont beaucoup plus pratiques maintenant aussi nous avons un autre problème après euh, nous saluons la sortie euh, enfin euh, le, le la, la promulgation du du euh, de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins mm. après il y a eu quelques décrets d'application peut-être euh, et nous avons ça même la le statut de l'artiste On parle aussi de décret d'application. Mais je crois que à l'avenir, il faudra y veiller. Ce que vous faites là, c'est déjà un cas très important. Ça permettra certainement à d'autres de réagir. Un pays, c'est comme ça, c'est dans la discussion. Aucun pan de la société ne doit être exclu parce que les compétences sont diffusées, les compétences sont éparpillées. Il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose, moi je le crois, euh, du fond du cœur. Et merci aussi pour avoir fait venir Ndiagambaï, le grand auteur, Souleymane Faye aussi, qui vraiment... Le philosophe, Cochrane. Ouais, ouais, ouais. Ces textes sont d'une portée philosophique extraordinaire, d'une sagesse euh, à faire pâlir d'envie beaucoup d'intellectuels. Et aussi, quelqu'un qu'on qu oublie souvent, euh, Moussangom, parfois lui, dans son panafricanisme, je dirais même, euh, dans euh, la Sénégambie. Là, il était là-dedans. Hein, Ismailo, nous savons que lui, le panafricanisme, mm. Baba euh, Youssou, et, euh, et, tout. je pense que nous avons de qui tenir en matière de culture. Maintenant, il faut leur montrer notre attachement. waaw ah, ñu parce que le, statut c'est vrai c'est un état c'est un ensemble de règles mais c'est aussi, au plan pratique, ça entraîne des, une protection, une reconnaissance. Ils sont connus, mais il reste à être reconnu. njeexital bi. voilà bindkat nga euh, da ngay taalif da ngay bind itam ci lu yitteel euh, lépp lu aju ci dundinu artiste bi wàllum assurance beeg ñoom seen. Mm. au fil des émotions nekk tamit recueil de poème bu génn ban at édition leen au 2000 qui qui c'était celui-là bon, je pense que c'était 2004 2005 D'accord. L'extension de l'assurance au Sénégal un en 2019 pub, un défi public et privé de, en euh, 2019 voilà bi c'était en euh, bi c'était en 2004 2005 ah c'est le plus ancien 2004 le premier muy muy wane ne li nga wax li moo nekk mooy ne danga bëgg bind waaw da bëgg xalaat moo indi interprète bi auteur bi waaw parce que gis nga bind bi premier trimestre bi 2014 la les industries culturelles et non l'écriture foofu la ñu tubaab bi mëne xam nga ñun Sénégal dañoo am day wax naan africain l'oralité waaw nee nañ sax si tu veux cacher quelque chose à un africain mets-le dans un livre mais loolu dafa grave gis nga bind day mel ni yaa ngi tukki soo bëggee jàng surtout àdduna bi léegi lu ci bëri ubbil nga lire lu ci bëri même ci suñu diine ak ci lu bëri booy ubbi di liir di nga xamal directement sa bopp loolu am na solo li nga xam ne nag dafa spécifique mu xaw a lëndëm ci yow mun nga dem nga laajal ñeneen ñi mais léegi le savoir dañ ko démocratiser et je pense que c'est très important euh, parce que bu njëkk da nga doon dis ku am xam-xam dem ak moom ñu ngi koy. waaw Amadou Ampaté Ba nee na mag ñi bu ñu demee ci Afrique rek bibliothèque moo dem parce que seen xam-xam bi yëpp yóbbu nañ ko. binduñu li nga wax lii binduñu lépp dañ koy wax rek. lu tax duñu am ci suñuy mag lu tax du duñu duñu ko am ci suñuy mag ñu baax ñi suñuy kilifa. ak suñu taarix ñu bindaale ko tamit. ñooñu a jege euh, jàng moom na nga xam feneen waaye na nga xam aussi ci loola jege te ñooñu euh, buñ ko defoon. wax nañ ñu ci diine mais wax nañu ci àdduna tamit. ak ci nit ci àdduna bu baax a baax ak ci nit mu ngoog. ñu yegg ci cëppaandawu émission bi bàyyi la nga tàggatoo. di leen gërëm bu baax awel euh, li ngay def nii lu lu am solo la euh, ça montre que télévision mun nañ dem y a pas yooyu yëpp benn bu ci nekk dafa war a am rubrique ñi mun a indil réew mi dara. dem leen di leen di seeti taataan leen parce que kenn du fi nekk ba faw nañ jël les archives nationales am nañ ci rôle nos télévisions surtout la télévision nationale qui est subventionnée aussi am na ci rôle comme li ngeen di def ni yéen ak ñeneen ñi yéen da ngeen koy def de manière bénévole et j'espère que di ngeen am soutien pour ça parce que tout ce qui concourt ay une mission de service public dañ ko war a jàppale loolu laa mun a wax ci ne euh, merci d'y avoir pensé yàlla na seen émission bi law yàlla ngeen dem jëli ñeneen ñoo xam ne euh, ñoo ma gën a xam fuuf ñoo ma gën a mun fuuf te euh, mun nañ indil Sénégal lu rëy rëy rëy ñu ngi fii yaa ngi ci yal na la yàlla may kattan bi yal na yàlla def jàmm ci seen télévision bi waa suñu duggee te lépp aussi du Dakar rek parfois suñuy dem Euh, partout da ngay gis koo xam ne boo ko gisee doo ko ko yaakaaree mais ci lim lay mun a indil ci xam-xam xam-xam mu ngi ci wax mu ngi ci jëf xam-xam mu ngi ci nekkin mu ngi ci jëfin xam mu ngi ngi fu nekk mais parfois am na nit ñi daan dañ daan daal pourtant ci ci partout ci yàlla mu ngi wax ak ñun jaww jaa ngi wax ak ñun mais dafa mel ni ñun dégguñu seen émission agriculture doon dalal Birame Ndek Ndiaye interprète bindkat ràññeeku itam ci wàllum assurance ci wàllu caada cosaan seen émission sunu label TV di leen jox dikta ji ci lu yàggul dara ak beneen daanaan ci caada cosaan fii ci agriculture ci sunu label TV jërë